ni nga waxee tamit ci xar yi war nañ mën a wax tamit ci li nga xam ne mooy mbébétu population yi ci tabaski ndaxte ku wax waxu euh, xar wax tamit marché bi li nga xam ne moom la ñuy gën a jooytu ci événement yu mel ni tabaski korité màggal gàmmu mooy wàllu oignon ak pomme de terre dañu seetlu ne fan yi njëgu soble bi dafay yokk bu baax a baax euh, loolu nag euh, daf ñuy xaw a jaaxal ndaxte jàpp nañ ne li ñuy soxlawoo ci euh, soble fii ci Sénégal mu ngi toll ci trente mille tonnes weer bu jot te fi mu ne nii buñ ko seetee production locale bi ëpp na trente mille tonnes mot na cinquante mille tonnes cinquante mille te jàpp nañ ne war na mën a couvrir besoin yi ci tabaski bi waaye nag dañu soble ne njëg baa ngi yéeg di yéeg di yéeg donc bi ñu defee suñu enquête gis nañ ne yenn producteurs yi dañuy def li nga xam ne mooy rétention de stock maanaam denc. Euh, li ñu bay ngir bàyyi ba njëg bi yéeg am na sax ñoo xam ne dañ naan fekk eggul ñetti junni maanaam quinze 15000 francs saaku bi du ñu génnee seen soble jaay ko ci soble boo xam ne mënoon na bañ a àgg ñaari junni muy 10000 francs donc état du Sénégal li muy def mooy protéger consommateur ndaxte ñun nag njaboot lañ yor njaboot gi kiy jënd ci la bokk kiy jaay ci la bokk waaye nag bu ñu demee ba kii bëgga jàppale kiy jënd kiy jaay ba muy lor kiy jënd loolu tamit mënuñu ko seetaan. looloo tax dinañ ubbi marché bi bu ko defee ñu importer soble lu ëpp di 000 tonnes ngir marché bi mën a calme wàccaat tuuti parce que nag euh, état mënul jël euh, ay li nga xam ne moom la ñuy wax euh, semence yeeg yooyu yëpp subventionné ko jàppale baykat yi bu ñu àndee produit yu jóge bitim réew ñu ne dañuy jàppale waa bitim réew bu ñu tëjee ngir waa réew mi liggéey mën a jaay ñoom it ñuy xaw a ñi nga xam ne ñooy woy jëfandiku yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy consommateurs yi ñoom ñëpp dañ leen war a protéger ndaxte njëg yi fi mu toll jéggi na dayo te gis nañ ne bés bu ne njëg bi day yokku téeméer day yokku téeméer te loolu xamuñu fu mu jëm donc loolu moo tax état dina def loolu ngir ñi nga xamante ne ñooy woy jëfandiku yi ñu gën a mën a euh, am li nga xamante ne moom mooy njëg yu jàppandi leneen li mooy pomme de terre amul benn problème mille cinq cent ton maanaam juróom-ñetti Euh, junni ak euh, juróomi téeméer mooy li nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo Sénégal boo demee ci benn opérateur bu mag rek mi ngi ak stock lu ëpp juróom benn fukki junni maanaam 60 000 tonnes yoo xam ne mi ngi fa te gis nañ ne diggante weeru mai ak léegi euh, la nekk ci biir stock yi yokk na de 16 pour cent maanaam téeméer boo jël fukk ak juróom benn yokku na ci te njëg bi mi ngi tourner entre neuf mille cinq cent ak onze mille maanaam euh, ñaar junni bu manqué téeméer ak euh, ñaari junni bu teg ñaar téeméer donc ci yeneen produit yi amul benn jafe-jafe leneen lépp loo xam ne li nga koy jëfandikoo ci ci tabaski amul benn jafe-jafe donc looloo taxoon ñu ne dañ fi daje tey defal leen le point ngir ngeen mën a xam li nga xam ne moo xew ci marché bi bu ko defee mbokk yi xam ko euh, décision yi nga xam ne état bi jël na ko moo xam yokk kaaraange ci site Euh, fexe tamit mu gën a am ay point de vente ni ko monsieur le ministre waxee ak leneen li nga xamante ne tamit euh, war nañ ko bàyyi xel mooy euh, li nga xam ne mooy droit ak taxe nga xam ne état bàyyi na ko ngir njëgu xar yi gën a mën a jàppandi ci population